kasaani ki lii ak tasniir su ñetteel ga xat bu si la joxeef na ko li maxlakin ñeel maxlakin bi firi ak alku ba tey maxlak nangu na ñetti anam nangu na maxlak maxlik maxluk wallazi la nga xam ne aliyaa u yaa xaynuhu mooy aynam kas saxiixi mi ngi mel ne aji wér ja am nañu wax ne faxala bu xëyin ga nekkee yaa mook bu wéree ñoo yemoo ci bu la neexee dëkk ca mastar mafxal boo jubloo zarf nga def mafail mel ne xaasha dund na yaxiisu aj wa fi yàlla soo jubloo ak dund rek nga def mahaashan soo jubloo nag zarf maanaam béréb bu dundukaay ba wax bu dund nga def maishan buñ gisee lu bokk te loolu xëy na kon lu néew lay doon niki ci alquran wa yasalunaka xanil maxidi nee nañu lam ca teg ne huwa adan moom lor la ci lañ jàpp ne al maxid foofu masdar la fa te defu ko maxaadan maanaam néewut wa yasalunaka xanil maxaadi dafa def xanil maxidi ñu ne loolu bariwut kon ci waxi ñooñu moom faxala bu xëynam nekkee yaa moog bu wéree ñooyamoo bu la soobee nga indi masdarum miimi yoom mu tëggoo mafxal daraf sa tëggoo mafxil mel ne kon ñoom dañ ko jàpp aw yoon fu ne sañ nga ko faa defal sa bopp am ñu ne déedéet tëgg ca masdar sax du xiyaas tolloo naag loo ci dégg rek mën nga caaroy waaye bu jekki-jekki di ko sosal sa bopp mel ne ne moom mi taalif nag jooju wax la gën a dëgëral ndax dafa daaneele wata waqaf na nga taxaw xalaara yin ci ak gis wala taxadu tebul jéggi allazi la nga xam ne nuqi la toxaleef na ko maanaam yemal ci la nga ca gis ñu koy waxe nga waxee ko noona waaye nag bul ko jéggi di sosal sa bopp moom la saraa bi wax naa wa minhum man lam yara al masdara min dalika qiyaasan wa tawaqafa bihi ala samaa'i ba soxna nga tëgg kasmi mafxooli xayri fi talaasati niki is mafxoolum lu dul boroom yetti araf minhu ci lu dul boroom yetti araf limaa ngir li nga xam ne mafxalun mafxalun aw mafxilun wala mafxilun joxi laa defee xoon na leen ko ñoom ñaar li mu weesu lépp da doon wax rek sulaas yi kese boo ci bëggee tëgg mastaru mimi yi moomu mafal mbaa mafil noo ko cay defee waxagula woon nag lu ëpp sulaas yi moom noo ko ciy defee mu ne la lu ëpp sulaas yi moom yow mën a caa tëgg ndax na nga xamoon ñu koy tëgg isma fool rek noonu nga cee tëggiwaat mu daal lay jox mastar ma mbaa mu jox la daraf sax min akrama teral na rubaax yi la bu la neexee tëgg ca mastaru miimi waaye danga koy def kon mukra man te muy firi ak teral doomu xam ne boo ne akramtuhu mukra man day mel ni nga ne akramtuhu ikraman xam ne mukra man ji tegu gis ma foofu la waaye mastar lañ ci jublu ak boo ne waxaasa lii mu daxaraju zaydin mooy bërëngukaayu sayid xam ne boo doon def lu ñu bërëng itam mu daxaraj lay doon waaye dangaa bëgg wax nag béréb ba nga daal def tëggu isma fool ma mu daxraj jublu ci ay makaanu daxrajatihi bérébu bérëngam nga soo jubloon waxtu bérëngam it noonu lay mel xam ne ci alxuraan wa mazaqnaahum tenu tasaare leen kulla mu masaqin gépp tasaare xam ne mu masaq tëggi tëggu isma fool la waaye mastar rek lañ ci jublu ndax yu max naa wa mazaqnaahum kulla tamziqin am na ko waxam ne innal mu waqaa naka fegga xam ne mu waqaa tëgg tëgg isma fon la waaye dafa jublu rek araada at tawqiyata ak fegal ak fegal rek la ci jublu innal mu waqaa naka fegal ga xam ne al mu waqaa tëgg tëggu isma fon la waaye masar la ci jublu ak kene woon uqaajil danaa xeexante xataa la araaba duma gis muqaatalan ak xeexante lii ñeel ma li muqaatalan jooje daayu max naam qitaalan te foofu nekk tëggu isma fon la ak alhamdulillahi mumsaana wa musbahuna bil khayri sabbahana rabbi wa masana ñu xolaat nak ba xam mumsana wa musbahuna dafa japp mumsana muy mubtada bil khayri lam bo xabaram kon ñu firé ko mumsana sunu dugg ci waxtu ngoon wa musbahuna ak sunu dugg ci waxtu suba bil khayri nek na ci yow ak da ko def saraf rek dal ni alhamdulillah mum sana ci sunu waxtu dugg ci ngoon wa musbaha na ak sunu dugg ci waxtu xey muy suba sabbahana khayale nanu bil khayri ci aw yow rabbi sama borom wa massana te mu ngonal nu bil khayri ci aw yow batay faslun li ab dog la fi bina'il mafhalati ci tëgg mafhala li dalalati ngir taktale halal kasrati ci ak bari da ci wax bu nangam bare ci suuf sangam na ngay tudde turu suuf soosé manam baat ba nga xamne boko waxe rek mu daldi firi suuf su bari lolé ismul ardi turu suuf sa mafhalatun moy mafhalatun min ismi ma tukke ca turu la nga xamne katura bari na ca suuf sa suuf sangam bu fa nangam bare da ngay seet turu lolé fa bari nu ko arab yi waxe su fekkee ne ñetti araf la rek boo ca tëggee mafhalatun mafhalatun daal di tekki suuf su bari loolee dikki bu fekkee asadun gaynde moo fa bari boo tëggee mafhalatun muy masadatun bu daal di firi suuf su bari ay gaynde su fekkee babuhun bukki moo fa bari boo tëggee madbahatun bu daal di firi suuf su bari ay bukki su fekkee di bun till moo fa bari soo defee madabatun bu daal di firi suuf su bari ay till boo tax mu misaale ka misli masbahatin niki kem masbahatin bi firi suuf su bari ndegment sabahun ndegment mooy rabuy fàdd sabuhu ndegment su bare ci suuf soo waxee rek masbahatun masbahatun daldi firi suuf su bari ay ndegment yooyu yépp nag dañuy ñetti araf mu wax nag bu fekkee baat ba dafa ëpp ñetti araf lam ko ëppe benn muy ndolleen mbaa lam ko ëppe di cosaan bi wa saa'ilu ndolleen la uxtu si la dogeef na ko min sil masiri tukke ci borom dolen su fekke lolu ëpp na ñetti araf waye lam ko ëpp ndolen rek la da nga dag araf yi bam dess ñetti ya nga teug ci mafhalatun je ka mafhatin niki mafhatin bi firi suuf su bari jaan dafa bayyi ko ci afha afha lañu wax am ñeuf muy jaan afha nak ñenti araf la waye am sa gi day ndolen kon bo dagge am sa gi ndolen rek sa ci teug mafhayatun araf rag yu mas ci ya aji fata jitu ko nga sopp ko lif mu dal doon mafhatun mafhat di firi suuf su bari ay jaar wa mufhilatun mufhilatun wa afhalat ak afhalat qad uhmila nangof na leen anhum jele ci ñoom fi za ci li batay sax nenañu man nga fekk turu la bari ca suuf sa nga teug ca fihlul madin bu teggo afhala wala nga andi ca ismu fahilum rubahiyu niki ngane asadatil ardu moy asadat barina ay gaynde ak ardu suuf si fekk sadat la njëkk nekk waaye am sa ñaareel bi day bij bu njëkk ba moo koy def asadatil ardu bu la neexee ne al ardu mufsidatun maanaam tëgg ca ismu fahil ma mufhilun muy mu si dun nga dolli ci taana ngir suuf dañ koy jigéenal ci langu arab kon hiya wala nga ne al ardu mu sidatun aji bari gaynde la ba tey dabahun bukki man nga ne adbahatil ardu mooy suuf sa day bari na ay bukki man nga ne al ardu suuf sa mudbihatun aji bari ay bukki la nga xam ne kon daal turu la bari ca suuf sa mën nga caa tëgg fihlul maadin mën nga caa tëgg ismul faahil at bay nekk ca fihlul maadin ma la ñuy jigéenal suuf a ko waral ba tey mu filun jëy ismu faahil ma taa ba nga cay def suuf sa ñu jigéenal moo ko waral niki dabbun bët su bare woon ci suuf mën nga ne mën nga ne ab dab batil ardu fahiya mudibbatun mu yooyu rek xayru sulaasi yi lu dul sulaasi yu nag moom tanixun aji bañ la nin sal wadahi ci gileeg tër maanaam su fekkee ne baat booba ëpp na ñetti araf te la nga ko ëppee bu ndool leen dafa cosaanu ca baat ba ni ki xaqrabun bi firi jiit wala dos baxun bi firi mbott kon doo ci mën a tëgg tëgg gi ñu wax kon na ngay seet noo ko waxee ni ki ni ki nga ne ardun كثيرة الحقارب ولا أرض كثيرة الضفادع ak leneen noo ko waxee rek bañ xam ne loola bari na ca suuf sa waru ba maa jaa amaana mu dikk nag min hu ci moom naa dirun aji néew xubbi la joj nangoof na ko xëy na nga gis nag lu ëpp ñetti araf tey cosaan boole ca ñu jéem ko caa tëgg waaye su boobaa du mën a tëggoo maf xalatun dikk nee nañu siboo yi dégg na arab di wax ne musa la batun ak muxaqra batun jublu ci musa la batun suuf su bari kundu ak muxaqra batun suuf su bari ay jiit dafa mel ne nag mool bële day maas musa li batun ak muxaqri batun sarabale moom di maas musa la batun muxaqra batun nun nag bu masaa di jàngale lii dañuy wax naa soo gisee baat ba day nuru ismul faahil ndax kasara ba ñu kasara la jëkk mujj ga ne musa li batun ak mu xaq ri batun waaye saabale moom dafa indi musa la batun fata laam gi ak mu xaq ra batun fata raaga ak sax def na mu dox dax jublu ca béréb bu bari ay mbott ak mu tax lab jublu ca suuf su bari li ñu wax toxalub mbaala mbaal daa mel ne kon say boo jàpp rek fataal jëkk mujj di wax mu xaqra batun mu saan la batun wala nga naa makaanun mu daf daxun wala makaanun mu tax labun yu demee noonu daal faslun li ab dog la fii binaa il alati ci tëgg jumtukaay ba maanaam jumtukaay ba nga doon jëfe jëf ja soo ko bëggee tëgg ca fixal ba noo ko cay tëggee sumu tëggal ismama turu la nga xam ne xomi la jëfeef na jëf ja bii ci moom mooy bii ak moom nga xam ne moom lañu ko jëfe ka mif xalin niki mif xal wa ka mif xaalin ak niki mif xaalin wa mif xalatin ak mif xalatin minat tulaasi yi bu tukkee ci tulaasi yi nee na mën ngaa fekk fi xal boo xam ne ñetti araf la nga tëgg ca mif xal wala mif xaal wala mif xalatan mu daal di wane jumtukaay ba nga xam ne moom nga doon jëfee jëf ja ni ki nga fekk xaata ñaw na nga bëgg a wax jumtukaay ba nga ñawee nga wax ca mixyat mu tëggoo mifxal wala nga wax ca mixyaat mu tëggoo mifxaal wala nga wax ca mixyatatan mu daal doon mifxalatan gis nga mi xas bi firi ab siso bàyyi koo ci xas sa dañ koo tëgg mifxal lu mel ne miftaax bi firi ab caabi dañ koo tëgg mifxaal ba ci misbaax bi firi ab làmp dañ ko tëgg mifxaal ba ci miqraab bi firi ab siso moom it dañ ko tëgg mifxaal soo gisee misfaatun bi firi ab seggukaay ni ki misfaatu naft seggukaay pétrole machine yooyu segg pétrole dañ ko tëgg mif xalatun nga xam ne mis fa wa tun la njëkk a nekk wëlbati wa ga muy alif ndax lam nekk arafu ràgg maas te fata jiitu ko ba tey gis nga mikk na satun bi firi ab bale maanaam jumtukaay bi ngay bale boo dee bale bàyyi ko ci kana sa bale na ñu tëgg ca mikk na satun mu daal di wane jumtukaay ja ñuy bale kon fexal bay firi loola ngay seet ci arab rek nga tëgg ca mif xal mbaa mif xaal mbaa mif xalatun mu daal tegtale jumtukaay ba nga xam ne moom nga doon jëfee jëf ja shadda jàdd na almu duq almu duq bi firi kuur kuur mooy ab walukaay jumtukaay ja ñuy wale wa mushutun ak mushutun bi firi mbarxanukaay wa mukk xulatun ak mukk xulatun bi firi tusngalukaay wa mudduhunun ak mudduhunun bi firi ab diwukaay bàyyi ko ci dëhëna diw na diw munsulun ak munsul bi firi ab dogukaay bàyyi ko ci nasala dog na wal aati ak aji dikk min naxala bàyyi ko ci naxala lay na ci ab tame kon mun xul lay doon day wane ne am na ay baat yoo xam ne ay turi jumtukaay lañu waaye bu ko arab yi wax buñ ko tëggee benn tëgg ca nee nga waxe niki almu duq bi ñuy firee kuur ab walukaay bu awoon ci cosaan mi daqun lay doon bàyyi ko ci midd xaqun bi ngay sàdd nag xaaf bu jëkk ci ku ñaareel gi nga taxaloon maskaam yóbbu ca daal ga fekk kasra woon nga mim gi muy mi daqun bu awoon cosaan noonu lay mel ba tey gis nga mus xutun bu awoon cosaan mis xatun lay doon gis nga mukk xulatun bu awoon cosaan mikk xalatun lay doon mudd hunun bu awoon ca tëgg na nga waxe woon midd hanun lay doon mun sulun kon min salun lay doon mun xul bi firi ab tame ab layukaay min xal lay doon waaye baat yi moom dañoo gis arab yi di ko waxe noonu rek kon yow itam soo jubloo rek turu loola te bëggoo wax ne liggéey naa ca xanaa turu rek nga soxlaa tudd di ki bëgg wax ne lii day kuur la mbaa lii day mbarxanukaay la mbaa lii day tuskalukaay la mu yooy kon da ngay bàyyi rek waxe ko ni ko arab yi waxe ne almuduq almusratu almukxulatu almudhunu almunsulu almunxulu waaye nag bu fekkee da nga caa liggéey nag di nett li ne liggéey naa ci jumtukaay bii nag kon mën ngaa jaar ci cosaan la waxe ko niñ ko waxe woon léegi ci tëgguk cosaan nga moom lay wax naa wa man na waa ku yéene xamalan jëf bihin na ci ñoom jaasa kon dagan la wëññeel ko fihin na ci ñoom kasrun kasara walam yo ba te déeful faale bi man ca ka nga xam ne xasala yedd na man nga ne ba tey walam ya ba te bu mu faale bi man ca ka nga xam ne xadala yedd na maanaam boo bëggee wax ne maa ngi liggéey ci jumtukaay bii ci benn ci ñu tudd léegi mbaa nga wax liggéey naa ci man nga koo amee ci cosaan ni ki nga ne daqaqtu bil mi daqi wale naa ci kuur gi wala saxattu bil misxati wala kaxaltu bil mikxalati wala dëhantu bil midhani nasaltu bil min sali naxaltu bil min xali nga xam ne kon mën nga aw ci cosaan la ndegam da nga caa jëf du rek nettali turu loola waaw bu bu dee nag rek nettali turu loola moom nga aw ca nee ko arab yi waxe tamu di ak jàdd foofu la téere bi yam nag waxad wafaytu matale naa bi maa ci lépp li nga xam ne xadrumtu sàkk woon naa ko mun taxiyen mbir mu muy aji daytal mooy mbir mu muy aji mat walhamdu cant ga lillahi aji nekk la ñeel yàlla id ngir maa la nga xam ne rumtuhoo sàkk woon naa ko gamu la mat na ne li ma jublu woon a taalif yàlla àggale na ko jàmm kon nag maa ngi dellu di sant yàlla tumma salaatu topp dolli teral wa taslimun ak dolli wóolu yuqaarinuha boog dana lëkkaloog salaatu àla rasuli yàlla nekk ci yonante ba alkarimi kay aji tedd alxaatimi kay aji mottali arrusula yonante ya nee na ci jeexal bi maa ngi dellu di julliwaat ci yonante bi di ko ñaanal yàlla dolli ko salaatu ak salaamu moom mi nga xam ne moo mujj ci yonante yi gannaawam kenn du ca topp ku yàlla yónni déedéet wa alihi ak ñoñam wa saxaabati ak saxaaba ya al kiraam yi ña dawee tedd wa man ak képp koo xam ne talaa topp na iyaahum ñoom fi sabilil makrumaati ci yooni teraanga ya waaye nag iyaahumoo ngay wax booy jàng way wi iyaahumoo fi sabilil makrumaati talaa yal na yàlla dolli it teraanga ak jàmm mbokki yonante bi ak saxaabaam yu baax ya nga xam ne dañu daa roy ci yonante bi di bëgg lu baax mu jaral leen lu ne ba yàlla gërëm leen may leen teraanga lu ne képp koo xam ne itam yaa ngi jéem a roy ci ñoom di aw fa ñu awoon yal na la yàlla boole ca teraanga jaag jàmm ja wa asalu danaa ñaan allah yàlla min atwaabi rahmatihi ci mbalaan yërmaaneem sitran sutura jamilan si aj rafet mustamilan si aji daj kapp xala zallaati ci mboolem rëcc rëcc ya wa an yassira ak mu yombalal lii ñeel ma sans yeen jëf akoonu jot danaa nekke bi ci moom mustabshiran di aji bég aaminan tey aji wóolu laa baasiran du ma nekk di aji ñëkk maanaam xarkanam bu ñaaw ngir njàqareeg tiis wajilan tey aji jàq nee na maa ngi ñaan yàlla ci malaani yërmandeem yi mu sàng ma ci malaanum sutura moo xam ne day daj kap mboolem samay rëcc-rëcc ba sama dara ci ay rëcc-rëcc bu feeñate maa ngi koy ñaanit mu may ma yombalal ma ma jëf jëf ji yiw te sax ca ba nga xamee ne fu ma toll sama xol day bég sama kanam naat nga xam ne mbégte ma ca xol ba mooy feeñ ci kanam gi ba kenn du gis ci man luy nuru tiis mbaa njàqare mbaa xar kanam buy wane lu bokkut ak jàmm foofu la laamiyatul avaal yem alhamdulillah wa sallallahu taala wa sallama wa baraka ala rasulillah وآله وصحبه وخديمه وكل من والاه